alhamdulilah laawee na biir hmm. Masha allah defal na ay génération yu bari ma su fekkente ne ànd bi rafetlu woon ni fi jógee dem su leen soxlaa dañu ñëw mais tey tey su waxoon ne ñun ñëpp nañu day safi ne ñoom ñëpp koy ndax ànd bu rafet nii ànd ak moom tamit maa ngi leen sant di leen gërëm ba dalee ci ak Seyni ak ñeneen kër gi ko def comme kër man sama nu boole rajo bi raj bi kay dafa ñëw ngir ñu bay suñu waar yow yàlla moo boole Cheikh na Tidiane moo nu boole ndax ci jawwatul kamal laa la xamit dama nekkee ci sama buntu kër ci Kuliyaan beneen ngoonu almaama dëgg yaa ngi firi jawwatul kamal firi bii neex ma lool lool lool ndax man ñaari système ci farikatu Tijaani ñaari bër ci farikatu Tijaani salaatul faati ak jawwatul kamal du ma wax ne ne am na lu ma ci